ñu dikk ak yéen ci ay xibaar yu fi jot a ruus ci bésu tay bi ñu daal di koy doore ak ki nga xamante ni mooy njiital Pastef di ko Sonko ko ci tamit coalition Yewwi Askan Wi moom rek dafa jàkkaarloo woon tey ji ak taskatu xibaar yi. boobu jàkkaarloo nag moom Ousmane Sonko daf caa xamle ni nga xamante ni moom la ay naataangoom yi nga fa féete ci kujje gi doxalee woon ba ñu fal njiital pencum ndawu réew mi moom Ousmane Sonko da caa daal di ànd bu baax ndaxte li nga xamante ni moo fa am doonul li nga xam ne moom la ñu war a laaj waaye lan moo ko waral mooy laaj bi nga xamante ni moo war a samp ndax dañoo violé li nga xamante ni mooy règlement intérieur bu assemblée national te loolu ñu ci bëri dencee cee daal di tëgg seen tànk kenn waxu ci benn yoon lu dul di wax ci li nga xamante ni moom la député def. ba mu jógee ci loolu itam wax na ci gouvernement bu yees bi nga xamante ni moom la Amadou Ba jiite muy xam ne ni gouvernement bi amu ci yaakaar te kenn waru cee xaar lenn ndax moom moom Amadou Ba neem ba muy jiite ministère des finance maanaam bànqaas bi yor suñu koom-koomu réew boobu la mënu woon a yëkkati koom mu réew mi assentement tey jii nga xamante ni dafa doon njiital jëwriñ ñi te njiit jëw te ko gouvernement bu yees bii ñu teg nag du lenn lu wàllum politique te politiciens yi nga xamante ni ñoo ko jiitee ñëpp daanaka kenn gañewu ci sa base politique. njiital Pastef ba tey ma ngay xam ne ni njiitu réew bi dafa daal di yéex te woote gouvernement de combat ndax ñoom waa kujje gi fekk na leen ñu ne ci combat bi bu yàgg liy firnde ji nag mooy ci jogante législative yi ak locale yi dañu leen daal di gañe gañe yoo xamante ni nii dafa leer nañ lu kenn mënul nattable kon nag ñoom nekkoon ca combat ba bu yàgg mooy xam xamle rek ni loolu lépp day wane ni lawoon wone na nekkatuñu ci pencum ndaw réew moo xamante ne ni ki nga xamante ni ñooy nguur gi ñoom ñoo fa ëpp doole ba lu leen neex daal di def wala lu leen neex daal di jàllale fi ñu toll nii nag mu ngi di déglu ki nga xamante ni mooy njiitu réew mi gannaaw ba nga gannaaw ba nga xamante ni Aminata Touré génn na ci groupe parlementaire Benno Bokk Yaakaar muy wane ni ñoom ñi ngi dese juróom-ñett fukki député ak ñaar moom Ousmane Sonko nag nee na ma ngi koy déglu te di ko xaar ba xam nan la war a def waaye tam duñu nangu benn yoon wala ñu di leen may ñuy faagaagal ñi nga xamante ni ñooy seeni député ndax député yooyu nag ak maire yi nga xamante ne ni ñoo bokk ci coalition Yewwi Askan Wi askan wi ñoo leen tànnal seen bopp daal di leen di wóolu teg leen foofee ñu nekk kon nag duñu seetaan benn yoon ñu laa leen di faagaagal nag loolu day wax ci li nga xamante ni mooy coolu coow li nga xam ni mooy ñel ñeel Barthélémy Diaz Barthélémy Diaz moom ñeel ëpp Barthélemy Diaz moomee kàddu yom fi yëkkati woon ni ki fan yi ñu génn ba mu indil fi ay coow digganteem ak ñi nga xamante ni ñooy waa l'Observateur tey Ousmane Sonko day mel ni ku koy dëggal ndax mi ngi xamle ne am na ñenn ci taskatu xibaar wala yenn ci ay groupe de presse yoo xamante ni seenum xibaar jaarul ci yoon maanaam day ànd ak par parloo moom maire bu Ziguinchor nag bi nga bi nga xamante ni pare na tey jii ca point de presse ba mu doon def dafa daal di ñaanaat ñi nga xamante ni ñooy ay naataangoom ni leen may leen ñu tuuti ñu daal di toog mu daal di jox kàddu yi ñi nga xamante ni ñooy taskatu xibaar yi ndax nee na day faral di dégg ñu naan dañu leen di woo ba ñu ñëw te duñu leen may benn yoon ñu daal di samp seen ay laaj moom nag tey jox na leen ñu daal di samp seen i laaj ngir ku ci nekk rek li nga xamante ni sab xalaat la wala li nga bëgg a xam ci moom wala ci doxalinam nga daal di ko koy laaj waaye nag taxul kenn ci ñoom rek daal di yëkkati kàddu laaj ko benn laaj moom usmaan Ousmane ko ba tey itam xamal na leen ni ñi ngeen war a laaj dëgg kay mooy seeni njiit ñoom ñi nga xamante ni dañuy gisante ak waa nguur gi ci pet ñu di leen neexal ak ñu nekk ci li nga xamante ni mooy bànkaas bu bakkanee te yéen ngeen di nekk ci naaj wi saa yu nekk ñu dikk ak yéen ci xibaar bu ñeel ba tey ki nga xamante ni mooy Khaliphone Sall moom mi nga xamante ni aji caare daf ko daal di woon porter plainte di xamle ca boobu plainte ni da ko doon jéem a sàkku ba noppi daal di koy dóor aji caare moomee nag ci li ñu jot am cib xibaar as ndaw la boo xamante ni nii ab journaliste la doon na jàngee tamit fële ca Bordeaux ginnaaw bi la dellu si waat fii ci senegal ngir régler ay mbiri boppam waaye nag waaye jamono jii nag réussir na li nga xamante ni nii mooy concours d'entrée ca fee ca CESTI mooy école ba nga xamante ni fa la ñuy former journaliste yi plainte boobee nag moom aji caare ma ngay xam le ni am na témoin ndax ki nga xamante ni moo di xaritam Kaliphone da koo defoon lu ni mel ca laataa mu ko koy def moom aji caare maanaam ca démb sa ci la ko defoon kooku di xaritam waaye kalifon nag bàyyiwul mu sedd ndax moom it daa daal di ndax nee na ki nga xamante ni mooy xale bu jigéen bi dafa yàqu otoom ba noppi daal di koy màtt lu ci mën warees na leen a déglu te ji ci altine ji ca brigade gendarmerie bu Wakaam ñaar fukki fan ak juróom benn ci weeru septembre 2002 ñaar fukki fan ak juróom benn ci weeru septembre 2022 ñaar fukki at ginnaaw bi nga xamante ni bateau le Joola daal di nay suux ci waaxi Ziguinchor yi boobaak léegi nag ni nga xamante ni ñooy victime yi manam ñi nga xamne ñoo ci ñak seeni wayjur wala ñoo ci ñak seeni njabot ña ngay joy ak di ñaxtu sa yu nekk nga xamne bu anniversaire bi dikkee dañuy sakku ngir ñu génnewaat bobu bato bato bobé nak mi ngi def lu tollo ñaar fukki meter ci biir ndox mi ñom dañuy xamne ni amna yeneen dekk yu mu doon doon mën nañ ko daal di génne ndax ñaar fukki meter ci biirum ndox wul ngir ñu mëna a bato bobu waye lu tax nangu ñoo génne bato bi nak dafa am leneen lu ci laq lu ñeel walu politique njabot gi nga ñoo ci ñak nak ñom ñoy waxé lu ni mel njaboot gi di nakarlu ba tay lan mo tax ñi nga xamanteni ñoo ci ñak seeni wayjur ñu di leen woy ay jirim ba ay bàyyoo nguur gi jëlu leen en charge ngir mëna leen jappalé ñu daal di jeexale bi la tënkum xibaar ak walum tàggat yaram sénégal war naa daje suba ak iran ci li nga xamanteni ni mooy match match de préparation pour coupe du monde 2022 bi nga xamanteni ma nga wara am ca qatar asalaamaaleykum mbokk yi jaaxle jeex na kan la ñu ne Serigne ay loolu si mbirum seet dina la wax ba wax la lu ñëwagul ay loolu tamit si wàllum faj dinay faj li ngeen xam ni moo di hémorroïde jigéen ju munta am doom góor gu tëlee dinay def ay ñaan pour ubbeeku kaaraange wàllum kayit mi ngi basé wu Dakar ak Saloum képp koo xam ne bëgg nga jox kook moom da ngay woote si numéro bii di 77 259 22 92 ma bamtuwaat ko 77 259 22 92 jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf.